asalaamaaleykum suñu mbokki internautes yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen bëggee suñuy suivre sur wasaare lamb wasaare TV kon niñ koy defee rek diine ak mbër day continuer tey nag ah, ñu ñëw fii si ah, ci géejawaay ñëw seet si champion boo xamante ni macha allah muy Eumeu seen junior kon niñ koy waxee rek di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak di ñaan yàlla koor gi ñu woor yàlla def si jàmm. waa kenn ku nekk rek képp di ñaan yàlla jàmm ji gën a yokk feebar bi nga xamante ni moom moo lëmbe àdduna xam nga yàlla génne ko fi ci barki Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam mbër ak diine Eumeu Sène Junior te ñu fekk si ko nag ci koñam fii di géejawaay ñu fas yéene waxtaan ak moom kon niñ ko defee gars yi rek ñu xool ndax seeti nañ Alioune Sèye Junior seeti armée seeti ay ñeneen ak ñeneen tey ñu ñëw ci moom fas yéene waxtaan ak moom ci koor ba xam mbër bi dina woor instant bi ak confinement bi ni mu koy dundee lépp sur wasaare làmb lay lay xewee di ko waat bu baax a baax moom sama messi sama séeréer bu naaj bi su ma ko waxee nag ñëpp xam nañ ne Basiirou Diouf Diouf a njoxo baay ah, yow yàlla na sa jàmm yàgg ndax nee naa la yow chaque jour ci innové nga dëkk di dee béggawaat a eh, ñi nga xam te ñoom ñooy suivre kenn du ñoom ama seen junior maa ngi leen nuyu Fadima maa lay siyaar di la wax ne welcome bienvenue di la siyaar di la baalu àq di la baal ñaan yàlla Sénégal jàmm yàgg fi ñaan suñu borom jële fi mbas mi mu gaaw ndax fi mu moom doy na waar trop sonal nañ waaw. mbër ak diine de. waaw mbër ak diine waaw maa ngi nii toog de ak dongam Serap Fall ngay waxal de ak Baye Fall waaw. noo taw concept la waaw tawfeex la xam nga ñoo ngi ko seetaan di ko suivre ak yenn mbër yi ñu ko defal yëpp naaj na trop vraiment macha allah yàlla suñu borom def daal mu gën a saawoon baawoon incha allah. Eumeu Sène junior borom waaye borom Pikine borom Diourbel te ñu fekk si la dañuy dugg ci biir ñu waxtaan ak yow mbër ak diine ñu xool ba xam yow Eumeu Sène lan lay pratiquer. <laughs> pare mun naa nekk ah. <laughs> ñu fekk ko fi ah ci atelier eh, sama sama xarit bi ah muy eh, waaw man sama xarit la muy Mame Fallou ah di ko waat bu wér a wér waaw kay Eumeu Sène junior borom Guédiawaye. am eh, jër ngeen jëf mbokk yi yéen ñuy suivre sur wasaare lamb wasaare TV kon niñ ko defee rek ci li nga xamante ne moom mooy commencement bi ñu seet si Eumeu Sène junior mu nekk champion boo xamante ni macha allah nee leen dafa nekk xale boo xamante ni dafa marqué ay empreinte am ci lamb tey nag mbër ak diine ñu seet si ko fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom mooy weer koor bi ak ci li nga xamante ne moom mooy ci dernier combat bi mu jógee nuyoo na léegi mais dañ koy ëmm ak diine ñu nekk ci koor hmm, nan ngay dundee koor gi. waaw d'abord dañuy sant yàlla bu baax julli si yonent bi sant suñuy ñaari waajur sant sama sëriñ suñu Mor Abdoulaye Fall Ndar ñaan yàlla suñu borom yokk leeram tasa suñu ci barkeem may nuyu sama mbokk Baye Fall lépp ci weeru koor bi di wax ne confinement bi moom tëj moo tax gisuñu ma xam nga man heure bi lu mat 15 ans nii waxtu bi du ma fekk fii damay toogi ndogu waaw ñuy sant yàlla bu baax weeru koor bi ñu ngi koy dund waaw comme ñëpp waaw ñu ngi koy dund kon ñëpp nga ni lu mat 15 ans mi ngi nii fekk da chaque koor doo ko waree woon fii. Ah. Ah, lu waral loolu. waaw ah, que man donc ab Serap Fall la ab Baye Fall la xam nga moo waral mais confinement moo fi tëj moo tax mënu ma dem chaque weeru koor damay dem xam nga toggi ndogu ba gi jeex ma soog ñëwaat Ndakaaru del sumay activité waaw comprendre ñi la suñu borom dogal xam nga. affaire yi ñu ngi toog ndog nag quoi mais ñëpp demuñu Touba la ñu koy defee waaw mais lépp ci sant la rek alhamdulilah ndax ñun moom ci ndigal la ñuy tënku rek lu ñu wax rek loolu la ñuy def. amu ah, seen mm, yaa woor. non man Baye Fall laa Baye Fall nu muy wooree. <laughs> donc observe ah, du woor. ama mm, comme que dañ ne mbër ak diine. koor gi ñu gis ne ah, mais yow mosoo woor. non man daanaa woor mais bi ma demee ba retrouver war xam nga man tax Baye Fall laa judd mais le temps que may dem di. delluwaat suma sëriñ xam nga di des yeesal sama njébal maa ngi doon woor parce que ñi ma yoroon dañ doon dañ doon woor xam nga mais bi ma demee ba demaat yeesalaat sama njébal ñëw ci sama sëriñ ñoo ko asantu naa si woor wàcc na ma parce que Baay Faal la waaw euh, loolu ban âge la woon ak fan la woon mooy temps yi nga daan woor ban âge la woon mbaa boobu boobu maa fekk maa am ay dix-huit ans ay dix-huit ans nga commencé woor waaw man man mu commencé woor yàgg na man may commencé woor presque xanaa maa ngi ay ay ay affaire yooyu noonu yàgg na eh, yàgg na mais bi ma demee bar xam nga ma mhm. tamit xam nga tànnal sama bopp sama yoon. Mhm. ah Cheikh Fall laa bëgg ci sama xol. Mhm. rawatina ñu tuddee Moussa Touba Cheikh Fall suñu mër Blay Fall xam nga may nuyu xalifa bi suñu Cheikh Bintou Fall maa ngi bu baax di nuyu sama mbokk Baye Fall yëpp yëpp yëpp. waa kaw Sara Fall maa ngi di siyaar bu baax ak waa Ndar Fall yëpp ku lu Baye Fall Ndar maa ngi lay siyaar bu baax a baax si weeru koor bi. waaw am avant ngay doon Baye Fall di yeesal sa njébbal ah, daan nga woor wooru gàlle. wooru gàlle. Hmm. waaw man damaa yor gàll ni ma ko defee su may sangu quoi su may sangu waaw may sangu moom. pour tout ce lu ne naa ci daan moom. su may sangu moom gën pour ne moom dëgg yàlla boobu nga dugg fekk biir yu jeex tàkk doo fi mën dara. Eh. bien vrai que amoon habitude di sangu heure boobu sax mais weeru koor moom il fallait que mu sangu 5 ak 2 heures moom faaw heure boobu mu sangu ko <laughs> ndax mën na naan. non sangu pour kii dafay yokk doole tuuti rek mais ma nekk ma abal bàyyi naa ko waa euh, <laughs> waaw euh, mais daawoo après gars yi demuñu ba découvrir loo noonu. non am na benn mag euh, xam nga maa ngi ko nuyu de moom loolu def da koy xam quoi moom suñu borom da ko maa mag jigéen yëpp nag ah. Soora maa ngi koy charge xam nga di fuuta ñëpp suma sœur yëpp maa leen di nuyu Bintu. xam nga ami jeela gaañ yi ñëpp ñëpp maa leen di siyaar bu baax baax ami ngom tout ça ñoom ñëpp su ma sër yëpp maa leen di siyaar daal su ma limee damay juum maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax moom moom loo def moom xam nga day xam ne kii moom parce que moo ñu lépp waaw loo def day xam ne kii ñuy def ñii ak kàccoor la ci nar ko <laughs> du lu jub. waaw day siif naka waar après day découvrir quoi. Mm-hmm. Ah, mais moom dama daan cifaay cifaay yu métti sax kooku yee. Mm-hmm. kooku te jigéen la. Ah. yee mais dafa amoon kàttan macha allah. Mm-hmm. man doon tajee man moom ci ay raak yu métti sax. Ah. bu may mujjee dóor man maa ko tooñ. non safurlaa moo tooñ. mais man dem naa ma bëgg xeex bi jeex mais xeex bi mënul jeex. ndax la damaa sonn moo tax. Ah. te day def ci rot. bala mu def fiso jàkkaarloo yow dina def lu garaaw. Ah. barki Serigne Bamba. ndeysaan boo ko dafa weex. Mm. waaw mi ngi fii Fass Mbao lay sëy Soda maa ngi koy nuyu bu baax ak borom këram bàcc. ak njabootam yëpp ñu leen di ñaanal suñu borom defal leen jàmm. waaye. Eh, à chaque fois dañuy dégg ñu ne wóor koor dafa nekk loo xamante ni weeru promotion la. nekk na loo xamante ni que euh, wax dëgg yàlla pour nga ñaan nga ñaan ci wala pour tey nga am ci bunt bu buntu bu yaatu da ci koor day gën a gaaw yow nan nga déggee noonu weeru promotion bi ak weeru ngëneel bi noo ko déggee. waaw loolu lu wér la loolu weeru promotion la weeru ngëneel la la xam nga loolu yëpp dëgg la moo tax Baye Fall di ci profité murid di ci profité jullit yëpp di ci mhm. waaw loolu moom moo ci am bu baax loo ci defal ñi dañ la koy fulal. nga jox nit mu xewlu ba suur dañu koy fulal nga woor ci suñ borom waaw defal la ci lépp la ngay rafet njort daal sa koor dina baax sa jul dina baax hmm. lépp daal ci ak ko koy teg rek hmm. waaw est-ce que nit ki war naa mën a woor euh, di faat waxtu yi waxtu juróomi comme ma ne damaa woor duma julli waxtu juróomi yëpp loolu noonu euh, koor googu validé na baax na non dina baax na moom man moom loolu dese na moom sûr quoi hmm. moom ab Baay Faal laa li ma mën a xamal mooy daal xam nga nit moom xam nga comme que man Baye Fall laa moom maanaam ma wooruma. ok. ab ah, Baye Fall laa man dongam Seera Fall laa Seera Fall moo denc sama xol. man julliwuma wooruma je suis ah, libre pour sax ah. te tout le temps tamit maa ngi jéem ci sarti Baye Fall bu baax a baax a baax ñu ñaan suñu borom gën cee yaata mais boo dul ab Baye Fall moom waxtu juróom war nga ko mën a matale soo wooree tamit lii nga dëgëral sa koor mooy ko julli gi am ci solo. Mm-hmm. jàng nag ci côté boobu. Mm-hmm. waaw mi nit booy wax la ñuy la wóor. Mm-hmm. waaw jàng naa daara xam nga su ma yaay jàngal dugal na ma alxuraan su ma papa dugal na ma alxuraan mais xam nga boo jox ma rek mm, njaboot gi moom bu ñu demee nekk mag après dañuy dem wut seen yëfu bopp xam nga mais tey jii ñoom bu ñu sañoon ñun ay sëriñu daara la ñuy doon wala leen sax waaw. comme que doo julli doo woor te daan nga julli daan nga mais ba nga demee ba yeesa sa njébbal. loolu yëpp euh, si nga ko commencé. mais euh, Euh, julli. ba léegi ndax daan nga ko daan nga julli quoi. mais ëmma est-ce que tey euh, su ma ñëwee julli euh, ñëw rek taxawal. Mm-hmm. kabar kii est-ce que julli boobu valide na julli sans saar. julli sans saar loolu mosuma ko dégg wax dëgg yàlla. Ah. julli kay xanaa faar yaa usaan ngay jam Fatia ak Sarr. waaw ne ko gaay. ah xanaa julli boo julli di nga jëm Fatia ak Sarr. <laughs> Fatia ak Sarr. waaw Fatia ak Sarr kay mooy julli. <laughs> Ah, dëgg yàlla xanaa nag. Ah. waaye ñëw rek càbbari julli waxoo dara. Ah. xanaa doo ne jërëjëf yàlla jërëjëf yàlla allah xanaa doo ko wax la <laughs> ci sama xaar bu dalaa waxee xanaa Fatiha ak Saar la ñuy jullee am déet. Ah, ah, yow doomu Alpulaar nga xanaa loolu war nga cee lu bari. waaw Fatiha ak Saar kay la ñuy jullee waaw dëgg yàlla ah. nga bëgg maa indi problème. <laughs> Euh, pour ñi lay suivre sur Wassare Lamb. parce que am na ñoo xam xamante ni wax dëgg yàlla dañuy bëgg Eumeu Sène. Mhm. te tamit ñu bari dañ naan ay xam nga rek yéen bëri. Mhm. dañ leen dëkkal foo xamante ni bëri xam nga xaw ñoo kii. Mhm. bëri seen ay xelu jën na ñoo koy dégg ngaan mhm. mbëri dañoo xaw a kii mhm. xam sama mbëri samay xarit lañ dañoo xaw a mhm. dof mbëri jànguñu nangam te en général mbëri macha allah euh, tey xul xulxalaaw axat ah euh, nga xam te mu nekk saar boo xamante ni wax dëgg yàlla euh, saar boo xam xamante ni daal man dama koo bëgg sama biir xol ndax nee naa la tey saar boobu boo ko taree rek di am ñu bari ñoo xamante ni di leen ci kii di ngeen leen ci kéem ñaanal tey xulxalaaw axat boo ci amee ñett sax boo ci ñett moom tere nga kaamil wala ñeent ak tere nga kaamil. waaw waaw ngeen nga wax. léegi ah, xulxu laa bëgg nga nga kii woon ñu ko rek ndax kum ko sama saar la. yow yaa moom saar. dam koo bëgg saar bi. <laughs> damay laajte yaa moom saar bi yow. yow. mais yàlla lépp lu mu wàcce kay. waa ñun tamit ci lañ bokk. ma ci yàlla bokk mais bëgg moom sa bopp. waa xuloo la axat laa bëgg nga may ko gaayam aji bisimilah bisimilah gaay aji bisimilah ñu. julli ci liggéey bi. Fatiha ak Saar rek nga wax. Fatiha ak Saar di julli. waaw wax ca wax Fatiha ak Saar nga wax waaw. Fatiha ak Saar di julli kay. waaw waaw may ko internet ñu ngi lay dégg. wa allahu allahu samadu lam yulat walam yulat walam yakul lahu kufuwan ahad jar tàkk. allahu ahadun allahu samadu lam yulit walam yulat walam yakul lahu kufuwan ahad xanaa léegi seen xol sedd na. xanaa maa jàng jërë tàkk. pour ñu ngi suivre sur Wassare Lamb Wassare TV koor gi dafa metti yéen xam ngeen ni sax man léegi damaa changer xam ngeen ko koor gi moom moo metti ak mbëri nii waa Eumeu Sène Junior xul xulaaw axat allahu samat moom la tari yéen nag euh, yéen ñuy seetaan après yéen ñu jugé te après nag nee naa leen sama oustaz bi. dina si ñëw ma xam Eumeu ni mu ko taree noonu la. barki Serapal noonu nga ne xul axat allahu samat am yaat walam yulat walam yàquloo kufuwan ahad. Ah. waaw noonu la. ah ni nga ko man gide naa la. ah gide barki boo bëggee man aw feneen ay iqra bismi rabbika yëpp boo bëggee man daal la moo yow xanaa da ngaa dof nañ dem ci leneen jaara ci leneen jaara ci leneen. wax dëgg yàlla nag. maa ngi commencé am ay gan quoi ndax sànq ndax fan yëpp damaa noppi damay kii gars yi da dangaa yaru dangaa yaru te ngaa bañ a yee gars de tey koor lan mooy charte koor lu jëpp ne moom maanu micro micro lu jëpp solo mooy maanu si la bokk quoi parce que koor moom charte maanaam comme naka yow nga wax kom naka ko que charte koor bari na mhm. waaw bari na trop xam nga suñu borom wàcceel nañu ko pour xam nga dañu dimbali ci suñuy ñaaw teef wàññul ñu ko li mu ñu defal daal maanaam bari na sartikoor bari na lool damaa bëgg daal nga wax ci point bii nga wax pour mun ma xam nga toj loolu. charte yi tey euh, tey xam nga tey wax nga ko léegi. ma wax nga maandu tey est-ce que tey ku woor war naa dugg ci lu yoonam nekkul. ku loo ku woor war naa def naka su dul noonu lu méngoo ak li nga xam xamante ne moom mooy koor parce que damay dégg ñu ne ku woor dafa sensible. Mhm. damay dégg ñu koy wax. yàq ko dafa yomb. ko dafa yomb. Mhm. foofu laa bëgg ñu fa. or kay sart yi dèjà dama ne maandu moo ci ëpp solo. comme kay boo maandoo waroo dugg sa yoon nekkul nit warul la rom moo tax ñu lay tere sax toogaayu mbedd. ci biir weeru koor gi. xam nga waroo xool warul xool waroo gis loo warul loo ni sa yoon nekku si waroo lijjanti lu nga xamante ni sa yoon nekku si. maanaam lu ci ëpp solo li ci tënku daal mooy que maandu ci la bokk surtout maandu ci la bokk ci weeru koor ak sellal. ak sellal te sell. Mhm. waaw lu ci am solo la. Mhm. waaw sellal te sell mooy. waaw maanaam sa set da nga sel rek set rek maanaam. set rek. waaw set rek da cee am solo bu baax a baax a baax. Mhm. comme ba genre set. waaw ah, su nee set tey mhm. set ci yére am na ci waaye set ci biir tamit am na solo torop mais set biir moo gën a tax ñuy wax. set ci xol set ci biir moo gën a tax ñuy wax. set ci ñuy wax. Mhm. comme maanaam xol bu sell la. waaw xol bu sell. ak set sangu sangu set set di set dañuy am solo di sangu set saa soo xëyee te koor gi am nañ solo. di di di di di sellal daal di sellal daal maanaam. ok waaw parce que weeru sell la dañ ko war a sellal. Mm. waaw ni ñu ko war a seetla comme des fois góor yàlla laa comme gars yi ni ñuy defee weeru góor bi des fois nga dem doxaani waroo doxaani da ngaa war a toog jàpp sa ñàmbur. Mm. doxaani naam warut sax waaye ñun ay nit yu matul lañ waaw weeru koor gi ñëwee tamit muñ ko tuuti 30 jours la yàggul. Mm-hmm. waaw nga jaamu ci sa borom bu baax a baax naam daa war a dëkk sax. Mm-hmm. waaye ay doomu aadama lañ. mënuñoo dëkk di tooñ yàlla waaye dañuy jégalu. Mm-hmm. waaye li mun am daal mooy que loolu ci am solo la. Mm-hmm. waaw. wax nga ko léegi. mais est tey soo wooree am nga droit kii sa soxna. soxna Fama ma def ko lan. ma ne est-ce que tey soo wooree. am nga droit sa soxna. xool ba nga ko daan xool. wala na nga daan jëfandikoo ak moom. est-ce que am nga droit ba léegi day. koor wala guddi koor. ah. bëccëg gi wala guddi gi. da ngay wax leer rek. tey non ci koor. cest guddi gi. moom su euh, lislaam may na leen ngeen jote waaye bëccëg gi moom amu leen droit jote waaye am ngeen droit toog waxtaan. Mhm. sottantee xalaat. Mhm. ndax bu ngeen toogul waxtaan amaana ndogul du neex nam mu war a neex. Mhm. faaw ngeen toog sottantee xalaat wax waaye guddi gi. am ngeen droit jote balaa guddi gee xaaj bu xaajee balaa ñëw salaatu. nga jug laa sangu set ñëw tëdd sa soxna boo xëyee dem waaw. julli kon ci salaatu bi daal lay yem. ah salaatu kay fa la doog doog yem lépp luy ñax ñax salaatu la yem lépp luy taw feex rek maanaam ci salaatu bi doog nañ ko muy xéewlu muy jotee sa soxna lépp ci suñu borom di yemal na la fa. Mm-hmm. waaw tey mën ngaa toog nii comme 14 heures jot. Ah. nga toog waxtaan ak sa soxla. sa mm-hmm. soxna dem ba mm-hmm. benn instant am ci moom benn kéem koor googu noonu danga koy dog koor googu dagan na wala daganul. comme maanaam ngeen toog ci waxtaan ba sa xel daal di xaw a sori lool. xel nag dafa sob moom xel ji a moo sob mhm. léegi mu def loo ko santul de. Mhm. waaye kenn yëgu la. Mhm. ah waaye man loolu damay bàyyi am seen rek kon continué mais nag bu ma jotee ak yow dara. mais gannaaw ba xel moo dem te xel fu ne lay dem moom. ndax ñun ay la ay doomu aadama la. xel fu ne lay dem foo a yablu des fois nit romb la sax sa xel maa reetaan. waaw damaa ci ci ci moom dafa sob boobu eh, demoo ja. yabaluñ la ja. teel micro bi waxoo ko kenn génnewu ko wax dëgg yàlla war naa mën a sedd quoi loolu moom pour man amul ngaañ xanaa. Hmm. xel kese. Hmm. xel kese kon nga sangu set ci xel mu ah! bu fekkee da ngaa def xel mu sa koor gi jàpp sangu set ci xel mu jeex taag mais parce que Cheikh Rafal du jaaxal hmm. xel ke bu yàqee koor gi dina ko xel mi defaraat mu jeex tag ko ma dëgg. moo toogee sama soxna ñu ne nii sama xel def loo xamante ni warul ci koor sama xel dina sangu set ci koor ci biir koor gi sama xel sangu set defar moom koor gi ba mu naay saat ah. fa lillaahi walhamdu ñu nekkat ci la ne. nekkat ci Fall waaw. Eh, pour yéen ñu siiw si wasaare lamb wasaare TV tey nag ñu dalal ki nga xam te ne Eumeu Sène junior mais Eumeu Sène ki rey na ma barki Rasulullah. Eumeu Sène ah, ah, eh, Baye Fall nga. mais Baye yi nan ngeen di préparé ndogu ndax gis nañ ni wax nga ko léegi yéen. da ngeen daan def ay kii nutur ay café xam nga mhm. di ko jox jaamu yàlla yi di def ay yeneen xéwal di ko jox jaamu yàlla yi mais confinement bi moom moo tax euh, li nga xamante ni mënul nekk mais loolu noonu am na beneen dimension boo koy demee. Mhm. waaw loolu damay sawar ci tontu ci ko parce que ci ci ci ci laay bu doon dama ne à part la naan man mooy sama profession Baye Fall mooy sama liggéey. Euh, tey jii ñun su weeru koor gi teroo dinañ yóbbu suñu kumte mu yóbbee suñu kumte maanaam dinañ kumte maanaam dinañ jël ci xaalis ci suñu xaalis dem yóbbu ko kumte maanaam ñu fas koo jënd ay xéewal dem yóbbu ko suñu njiit ñu fas yéene ko jënd ay xéewal mhm. bu ñu ko jënd ay xéewal dinañ ñu wàccal ay matt ñu gor matt yi raxas ci yi esalaat lépp chaque jour dinañ togg ba mu neex togg ba mu baax mhm. yóbbul jaamu yàlla yi ñu woor ñu xéewlu kër mag moom la yóbbu mhm. mooy kër Serigne Touba gi nekk kër gu mag fu la ñuy yóbbu xam nga te loolu noonu rek moom suñu borom dala ci defal tawféex te coronavirus mii xañ nañu ko Covid 19 maanaam xañ nañu loolu mënuñu ko def te ñun ci ndigal lañ tënk wax na la ko sànq buñ ne ñu carrément mboolum yëpp mënut a dem tamit dañuy bàyyi ñu mën a dem dem wala ñu tey ji man mii mënuma génn dem parce que dañu tëj yoon yi bu fekkoon ne moom tëj ñu yoon yi moom mën naa génn dem mais dañu tëj yoon yi naa sànq 15 ans mu ngi nii weeru koor saa su jotee njaaram laa koy defee ci sama wetu kër sëriñ kër sëriñ Modou Abdoulaye Fall Ndar may nuyu waa kër Serigne Amdi Khady Fall yëpp di nuyu suma mbokk Baye Fall yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp di leen siyaar bu baax a baax wax di leen wax ne carrément xol beeg lépp a ngi foofu njaboot geeg xol beeg lépp a ngi foofu waaye gis na ni mu demee mënuñoo ñëw. waaw mais boo mënul ñëw tam am na ci beneen kii boo koy defee comme par exemple. Euh, céréale céréale. monsieur euh, ku ko dañ doon bàyyi li nga xamante ne moom mooy jàkka ji dafa nodd gi dal ñu continuer parce que tamit ñëpp xam nañ ne bu ñu nodd am ñu droit wax dañuy bàyyi ba comme que yàlla moom moo soxla te yàlla chaque jour moom mu nekk yoo xam te ne soxlaa ñun ñii rek ak ko ay jaamam lañ nodd gi da nga dégg gi rek nga taxaw nga taxaw ñu nodd ba pare après nga am loo ci teg mhm. est-ce que jullit bu nekk war naa bàyyi ba ñu nodd war naa war nodd war naa mën a jot comme mu nekk ci lu ko neex comme di waxtaan ñu pare euh, mu def li mu war a def est-ce que jullit war naa mën a def loolu ndax gis nañu nodd yow da nga taxaw. Mhm. am na kuy wax sax nga def ko nii nodd bi pare après nga am loo ca teg. waaw loolu moom lu rafet lu la suñu diine. Mhm. mooy que dañuy wax ne moom nodd moom bu xasee ba jib. Mhm. xam nga lépp looy def rek war nga ko arrêté. ba nodd gi jeex xam nga nga soog a ko quoi. waaw ah, moo tax ñun moom fii am nañu habitude boobu bu ñu nekkee ci dañuy wax ji waxtaan wala dara bu ñu noddee dañuy noppi dañuy noppi quoi ba noddi gi jeex ñu soog ko ne suñu activité. waaw mm-hmm. ah, moo waral réew islam yu bari sax ñoom du ñuy faral di liggéey ajuma waaw ah, am nañ am ñu bari ñu koy def. Mm-hmm. ñoo xamante ni moom bu ñuy liggéey ba heure bi commencé teru sax. Mm-hmm. ñu wàcc. dem def leneen. Oumar Baye Fall nga te yéen Baye Fall ci social ngeen di dox. sànq ñu ci ci point boobu lañ nekkoon. mais instant bi yéen da a taxaw yéen Baye Fall hmm. da ngeen a taxaw léegi yéen comme da ngeen daan joxe ay café di joxe ay mburu di joxe ay xewal nit ñi di ko def ko confinement bi ñëw na gars yi di ñëw confiné wu ndax euh, Covid 19 bi moom moo tax. Hmm. Euh, instant bi nii yéen Baye Fall lan mooy seen activité. waaw dégg nga ma ne la sànq gars ñu ngi togg sama mbokk Baye Fall yaa ngi togg. ah ok ñoom ñi ngi togg fële. ñu ngi togg Touba lañ koy toggee mais ñun ñoo mënul dem. parce que confinement mhm. tamit nee nañ ñu jarul mbooloo bi di bari. Mhm. ñu ngi fasaaleel suñu mbokk bay Fall ñu ngi ñu ngi defal suñu wàll. Mhm. Baye Fall moom boo fa nekkul rek kenn dana defal sa jëf. incha allah mais boo ko defee gars dañ lay yóbbu. boo ko defee ñu jël si la dañ lay yóbbu. doo doo yendu sa kër de. am ko nee nañ bu fi kenn teg jën bu kenn def dara. fii nii rek gars yi fi ñu teg jën di segg café. ak karaf fii dañ ko doon def. nga. sama koñ tamit Diourbel fële Kër Cheikh dañ leen def chaque jour ko sama booy ñoom pompé maa leen di ziar naa leen di passage dañ doon teg dañ doon teg cin. bu demee ba dog di waaye jot bu ñëw ñu ñu xel la nga dem. mais loolu yëpp tey ji mënoo ko am à cause de lan benn tawat bu fi wàcc. ñu koy sante yàlla parce que suñu borom moo ñu ko teg di ñaan yàlla mu teg ko. jàkka yaa ngi doon julli bu baax jàkka yu bari dañuy nodd rek après dem kenn du fa julle du lu baax ci réew mais tamit ñu koy sant yàlla rek suñu borom loolu la dogal xëy na yàlla suñu borom ñu ko teg dinañu ko teggee incha allah te loolu la ñuy ñaan yàlla. ci barki maam Cheikh Rafal yàlla na fi gaaw a jógee. incha allah ñu gis affaire bii nii daaw ba xawoon naa commencé bari ay coow ndax dem ba benn instant boo xamante ni sax da gis ñu bari dañ daan teg seen cin di segg ay café di jox mujj gi koñ boo dem mën nga faa fekk. ñoo xamante ni bàyyi ñoo xamante ni ko mhm. koñ boo dem day fees dell kii bi ngi seeg côté bi kii wi ngi seeti gauche kii feeg droite ñu demee benn instant ñu ne da dañu commencé bari ci kii bi ndax loolu am na ñu bari ñu ne sax day xaw a yàq ndax am ñoo xamante ni kiwatuñu seen kër yi ndogatuñu seen kër yi dañuy mhm. wër gars yi di wër genre ñoom am seen pour ñu leen koy jox loolu critique boobu daal nga ko dégg mais yow moo xamal la ñaar lu baax man tey ji may def lu baax mu leer ma ne li may def nii man awma ci kenn ku dul yàlla mhm. yow boo dee nit dëgg dëgg dëgg di nga ma ci fekk si da nga ñëw def ko comme ñëpp bu ñu ko motorisé ku ne def ku ne def def day tax ndog yi gën a saxoon baax ak ñoo xamante ni bëgguñu ko leen xamal peut-être amul lu ñu ndog mais bëgguñu ko leen ko xamal léegi loolu mun naa tax mun naa lu bari taw feex la loolu noonu taw feex la saawan baawaan googu noonu barke Cheikh Fall taw feex la te day gën a saawan baawaan rek. waaw kon ñi doon ñi doon critiquer daan buñ teg fii ñii buñ teg fi. Ah. mooy loolu. Mhm. boo tegee fi ak loo mën teg gën jeex jaamu yàlla dinañ ko utiliser kon tawfeex la barke Cheikh Fall tawfeex la. boo ko tegee tey jii kii tegee fee kii teg waa koñ bee nekk ñëw indi sa cafetière nga jox leen ñu dem te ñoom ñu koy dox pourtant ñooy génne seen fukki ak seen juróom am ñu ko ciy def donte yow di nga génne sa benn def ko si mais ñi ñi ngi ñëw génne seen fukki dërëm juróom ba yaay teg sa kël kon loolu tawfeex la barke Cheikh Fall sikkuut sikkuut de. na li ñu jublu mooy kon jaamu yàlla xeeru rek wut ci loo xamante ne da nga ko def te yàlla tax te yàlla tax nga koy def loolu rëy du ko def rëy rëy du ko ak oyof ku oyof dëgg moo koy def rëy du ko def de. dafa am ñoo xam ne waaye du ma fi nekk war dem lijjanti nekk fi naan damay teg ay cin nii doon rëy du ko def de ku woyof dëgg moo koy def ak woyof waaw ku nangoo koy def ku nangu am déet. mais parfois gars yi dañ doon wax yéen da ngeen koy jël di ko dugal seen poche. gars yi hmm. ñu bari loolu dañ naan ñoom ñu ngi koy def mais prétexte la dañ koy kii pour jënd xam def benn kii mais ñoom seen poche lañ koy dugal da ngaa tooñ te da nga ñun dañ koy jënd dugal suñu poche non waxuma comme ñun de parfois xam nga euh, yow uh-huh. daal affaire boobu bari woon na fi ah. da gis parfois ñu ne sax dañ koy def pour prétexte pour kiwal seen bopp xam nga li ma la uh-huh. mu def ko seen poche uh-huh. waaw man de wax dëgg fa yàlla du man taxaw gis kenn mu def ko ma ne kii li mu def ci poosam la <laughs> ndax li tax mu koy def nit ñaa ngi koy gis mooy café gee tax mu koy def ak suukar mu ngi defar a caféem mu ngi koy suukar ba mu saf jox ko nit ñu ñu naan. la des nag ba mu yokkee ko suba wala la des ba mu def ko def ko ci poosam peut-être loolu moom la man loolu lijjantiwu ma ko moom loolu moo ko yàlla la. <laughs> am na du métti seen côté xam nga 30 jours dafa métti. ngay seegg teg këll gi gars yi mais parfois di nga jëg benn instant boo xam te ne di nga kii dina neex pour loo mën a jëndee café pour segg ko jaam yi. lu ma fekkewul du ma ko wax lu ma fekk laay wax. mais man yéen parfois est-ce que dina. moom laa lay wax ni lu ma fekkewul du ko wax lu ma fekkee te dund ko laay wax mhm. daaw dañuy café tuut njëg jur leen maag sama gars yi mhm. ñoom jur boo xamante ne amuñu njëgu suukar parce que Serap suukar mhm. maa ngi koy nuyu de passage Serigne Sidi Diop maa ngi koy siyaar ak soxnaam soxna May Fall. boobu fekk na koor mi waa jeex ma jékki-jékki man ma envoyé ma 100000 nee ma Baye Fall boobu tey gis naa ne yaa ngi ci ndogu yi ma envoyé ma 100000. ma dem jënd suukar des ma def ko sama kër te kooku dama ko joxoon ñun am nañ pour pour café gi dama ko jox pour sama kër man. ma dem jënd ci suukar ñu suukar café gi li ñu ma jëfandikoo ko man. ko parfois dina métti. dina métti bu méttee sëñ bi ko tout le temps mi ngi ci yoon ni rek sëñ bi ko indi soit da nga koy yàkkamti nga dem jëlee ko noo xamante ni warul mais tout le temps sëñ bi ko indi. moo ñu fa teg barke Cheikh Fall day ñëw. mooy lu baax boo koy def rek baax moo la ci. xaaral rek jarul jarul jarul yàkkamti jarul def dara day ñëw. café googu day ñëw parce que boo xëyee soo ko soo commencé boo xëyee soit ñi bu dee gàngeen dañuy di génne 1000 francs 1000 francs teg li ci des lépp dañu koy nga fukk yeeg juróom yu xeebu yooyu noonu daanaka mooy jënd café mooy jënd suukar si après tey boo génnee juróom dem du la wàññi dara mais li après lefal kafe gi ci nga bokk te pourtant yow juróom du wàññiwu la dara maanaam xeebu xeebu la ci yow daal te pourtant li lefal kafe gi juróom yooyu ci la bokk ndax moo saawoon baawaan noonu. bañ jënd ci mën cee jënd kafe jënd ci lii jënd ci laa. suñu dañu ñu boole ci meew sax defar meew kafe meew la ñuy def. parce que